bokk julli ci gannaaw ba nu sant yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam noo ngi bal xaq ñépp di balu xaq ñépp yàlla nañu yàlla boole jéggal suñu diggante ak moom te dox ci suñu diggante ak suñuy moroomi jaam tomb bi ñuy fàttalante tey dafa jëm ci mbir moo xam ne kenn fàttewu ko kenn réerewut ab cëram ci ñun jullit yi te suñu boroom mi nga xam ne moo ñu sanal sañal manal nu moo ko gàll ci suñu loos ba ñu nangu ko muy mbir moo xam ne mii ñàkk gi ñu ko ñàkk umpale dëkk ak moom tax na ñu di ci waxtaanee loo xam ne xew-xew jamono la muy julli julli ñun ñépp miin nañ ko junju nañ ko ci ay waxtaan yu baree bari léegi kenn umpaleetul julli nu mu toll ci lislaam waaye bu ñu jëlee benn rek ci ne jox na ko solo muy ci lañuy xàmmee ab jullit ak ub yéefal loolu bu ñu ci jàppoon rek mu doy ku ko fonk ab jullit lañ koy àtte gannaaw bu ko yàlla àttee yàlla nañu yàlla àtte ci yërmandeem waaye jullit sañ nañoo wax ne ab jullit la woon doon doonte yu baree bari yu doon def ump nañu waaye gis nañu ko daal muy sëgg ak siggi ak sëlmal ak taaye ak li xam ab jullit lañu koy jàppe te bu faatoo it mënut a wax lu mu doonoon ak ceeb jullit lañu koy jox kon mooy li dox diggante ñuy xàmmee jullit ak ub yéefar waaye doy na ko sëkk tam ab cër ci diine su fekkee dañoo jër diine jëpp def ko jëmm ji dox mooy doon bopp ba te jëmm ji dox moo xam muy doomu aadama wala mbindeef bu fekkee ma ngay dox ak tànk bu dee boroom ñeenti tànk mën naa manqué ab tànk te du ko tee di dox bu dee boroom ñaari tànk mën naa manqué ab tànk te du ko tee sàkk pexe di dox mën naa manqué ab loxo manqué mooy yées ab loxo wala ay gët wala dootu dégg ci ay nopp wala gémmiñ dara du saf ci moom ci aw làmmiñam wala mu am wéradi gu ne ci biiram biiru yaramam waaye loolu lépp teewut muy dox di dikk ak a dem ak di jëflante doonte daa dem ba ne laaj waaye nag saa buñ daggee bopp ba tàggale ko yaram ba moom mu ne si ko tuddeeti tur wam tuddoon waaye day soppale ko tudd ab néew wala ku dee noonu la julli mel ci lislaam kon ñépp xam nañ ne ku amut lu amutul bopp mënta tuddul waaye bu dee garab goo xam te ne sàng taxaw fam taxawee demut dikkutit ren ba jëm ca suuf moom nga xam ne mooy sëpp ca ndox ma muy dund it boo ko daggee rey nga ko rey nga ko jax dutu am lii tegtale loolu nag ci alquran lu bari la li koy tegtale ci wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallama lu baree bari la loo xam ne ku ko xam danga ko waggar waaye lii gën a metti nag nit di ko xalaat ba mën na koo indil jàngoro mooy ñu xëy xëy ne jullit bee tegatu julli fenn faaleetu ko yàqaletu ko dara du ko tee def du ko tax a def waaye it bokk yi ku ñàkkal fayda julli ba boolewu ko ci programme am bàyyi na bokkam yépp ni ñu ko doon misaale naka jëkk nit moom mu ni su jàpp ci moom lenn képp ne moo ma neex ci moom moom laa ci jàpp nit ki bu la dee neex li tudd nit ki lépp ngay boole rawatina nag fonkal ko bopp ba nga xam ne su ayibe du tut nit am na yarkat bu ne woon fii ci dëkk bi daf ne nañu ma woowale diw xam naa ku dem ma nga ca boppam ba rek di niig niigal ndax kuy seen bopp ngay jëkk seen ci nit buy ñëw moom nit bopp ba ngay jëkk seen moom ngay xàmmee itam kay ñëw ku mu doon su dee ay ree la ba nga xam ne ko ca rajo te ma ngi ca nekk biir nee ba it jumtuwaay bay ree ci bopp la nekk yow it nga am ko ni moom ngeen di communiquer waaye it su fekkee da nga koy ruus bëggoo mu fekk la ci yenn yi wala mu gis la ca yay gisit ci bopp la nekk su fekkee da ngay jox nit ngir mucc ci làmmiñam tam làmmiñ ci bopp la nekk waaye su nit defee it lu loo xam ne day xeeñ mu bañ mu xeeñ kenn it lay xeeñ ba mu di ko moytul mu xeeñ nit ñi lay xeeñ tam di xeeñ di xeeñ ci bopp la nekk kon bu ñuy joxe misaal ci ne diine lis julli mooy bopp ba bopp ci la lépp nekk ci noonu moo ko misaalee looy séen rek ci moom ngay jëkk séen bu ko muuree ba xàmmeetoo ko day ñëw ba agsi bu ko muuree def talasum ne malanc ba nga xam ne dara ci ay gëtam feeñut bakkan ba feeñut gémmiñ gi ak tuñ ya wala sikkim ba séenoo ko ndax muuraay gaa tax bala nga ko xàmmee mu agsi xanaa ca doxin wa te it li koy tegtal fi muy jaar bay dox ba nga di ko séen it ci bët bi ci gana ci muy bët muy gët yi tam ci bopp bi la nekk kon liñ ci bëgg a waxtaane mooy julli ku màgg la gannaaw jëmm la ku màgg la waaye bu dee lu ñuy laal itam te muntu yëngu it lu màgg a màgg la ku màgg ak lu màgg moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi yàlla déggloo ay waxam wutal ko waxtu wuñ koy def doon nañ ko fi waxtaane keroog tuuti bu waxtu wa jotee it nañuy def ba dugg ci julli ga ñu wax ko ne na dem waaj bu fekkee sangu moo ko war mu sangu ji su fekkee jàpp a ko war mu dem jàppi su fekkee jàng la taamu ci tànn boppam ndax bëgg mën a jege nit ñi ci biir jàkka ja it mu dem jàngu ji sol lu set xeeñ lu neex bu dee julli moom kenn mu fexe ba taxaw fa muy taxaw set bu dee jàkka ja moom ragal nañ ne jàkka moom fépp mën naa set ndax am na ñu koy sonn kon am na wàccaay kon wàccaay wi lu mu jekk-jekk su waxtu wa jotagut tegee sa gukk ko mën naa toog di ko nekk ne sañ na ko ndax nit ki lu mu fonk lu nekk sañ naa waaj di ko fuglu waaye su waxtu wa jàllee it da koy dabiwaat waaye waxtoom jàll na moo tax bokk yi liñ ci wax ne mooy xew-xew jamono bi mooy julli moomu bari na ñoo xam ne danañu wooteel yàlla ab woote bu ñëpp daje ña mën a ñëw ñëpp ñëw ña mënta ñëw yónnee mu wooteel ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñoo xam ne bu ñuy wootee dañ naan yàlla la ñuy wooteel ñenn ñi ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñenn ñi ne borom Tuubaa la ñuy wooteel ba ñëpp ña mën a ñëw ñëw ña mënta ñëw yónnee waaye bokk yi am na ca lu ñuy wax ab cérémonie officielle loolu jullit yaa ngi fi bëgg a ñàkk yañ leen doon xàmmee te nit ki su xasee ba wat aw jubb wañ ko doon xàmmee day daal di réer sax ay bokkam dutuñ ko xàmmee moom waxuma laa ñi ko xamutoon di xam kii ci ñan la bokk sëriñ bu mag bi joxe na misaal ci si mën lim jëb dagana moo ko bind ne bi mu nekkee gànnaar te ñu nattoon ñay dem gànnaar ku fay ñëw nu muy mel day doon ku jàng alxuraan ba mokkal ko ba buñ buñ ne gàyyi ab kaamil di ko joxe mu mën a jàng waaye it mën a tontu ay laaj ci diine waaye am kàttanu liggéey buñ ne ay ci leen mu jóg te du sonn am ci koo xam ne nag ba muy dem daf taa def ay pexe daa yoroon alal ju bari fekk laajoon nañu Sëriñ Tuubaa kuy niru niru lu dara lu mu koy wàññi ak lu mu koy jariñ ak ku réer lu koy gindi ca ca ca ñaari fan lu jiitu waa ji di dugg gannaaw ca sëñ bu mag bi yabal mbooloo mépp ne nañu wuti matt ci àll bi ak fu ñu ko mën a jële ba ñu ko wutee ñu julli timis julli gee ñey jàng fee di jàng ñey naafile di naafile mu ne nañ taal matt mi benn yoon lépp tàkk lobb bi lobb ka doon ñëw nag watu ay faaraar mooy lii waa Afrique du Sud def ñu koy wax ay zulumaan zulu te te waa Sénégal xewal ko te xamuñu lu ci jublu africain yi suñuy watu yenn wate fi dañ ciy xàmmee xeet biñ bokk bi diw bokk am na ñoo xam ne ay njocc la ñuy def ñenn ñi ay ñaas ba ci réew mi sax ñi di ay pël di mbakk mbakk yi ak buso buso yi ku ci nekk am na ay aw watifam bu dee mbakk mbakk dañ koy def lu mel ne cercle mu tàmbalee ci jëb yi wër ba ci nopp yi léegi gone yu bari dañuy bañ ñu defal leen ko bu dee ñeneen ñi dañuy def yaari jubb ci kaw ñenn ñi def yett jubb ñenn ñi xaajale kaawar gi war ko waaye sénégalais yi luy jóge fi feneen rek lañ gën a yéem waa Zulu ñu dëkk Zulu yi ak xoosaa yi dëkk Afrique Sud la ñuy toppandoo ñoom kooku nag ba mu watoo wati fam googee topp guddi gi ba agsi fekk sëriñ bi ca jàkka ja mu ñu gaaral ko ne ko diw ñëw na mu joxe la may joxe sëriñ bi di tontu ci waa ji ni mu def ña doon laaj barki démb ne ko noo def ba agsi ci barab bi mu ne mbakke de ni ma def mooy wati fii daal lañ ma watal ba ci laa jànkonte kàccoor yi ba saa bu ñu ma gisee dañuy defe ne ñoom laa bokk ba jàll ba agsi fi ñu koy waxe ab si ndax ne kër kër ci kaw xayma bi gaa yi daaneel ko defe ne ab unk la duñ ko daaneelee ñu ne ah lii kat ab sa ndax la jotewut ak kenn dara ab jàmbur la sëñ bu mag bi ne nuru nuru lu dara ab attee moom noonu saa su nekk mën nañoo teg boroom loo xam ne fëggu ko woon waaye nag nuru nuru daa wóoru nit dee doon lim doon ne ko nag noo xamee barab bi te fii amuti garab amut dara mu ne ko taal bi laa séen xam naa ne fii amutub daay buy tàkk saa boo séenee ab taal nite ko taal mu ne kon ku réer sa war a koy ginti kon bokk yi foofu ku fi taxaw da nga xam ne kuñ ne ab jullit nga dangaa war a niru ab jullit fekk doon nga ko waaye ñi nga xam ne xamaguñ ko woon buñ la gisee xàmmee ko ci yow rawatina nag baat bi ko wolof jox far muy julli moo tax waxtoo moowu nga xam ne ku ko ca def dana am pay waaye ku ko ci defut na murid yi ñoom déglu la lu ci Sëñ Tuubaa wax Sëñ Tuubaa waxut ne ku bañ a julli waaye daf ne jóoru bàkkaar bu rëy nga ne bu mag boo xam ne boo ko doon wër mën nga ko wër sa ngir dund doo ko mën a doo ko mën a doo mën a tàmbalaat mi ngi mel ne kuy wër garab soo leen wër bàkkaar boobu mënoo boo tàmbalee fi nga boo tàmbalee fii di ko wër bala ngaa agsi fi nga jóge woon war ngaa mën dox téeméeri at ci rëy ñi gërëb ñi war gërëb yombe Sëñ Tuubaa ne noonu la wër bàkkaar boobu di jafee Sëñ Tuubaa ne ko ne ne murit bi téel ma ko ba boroom ñëw nga jox ko mel ne daf koo laaj ci lisaanu xaal kuy boroom mu ne ko koo xam ne waxtu julli daa jot mu ne ci boppam ba waxtu wa jàll moo moom jóor boobu su ñëwee nanga ko ko jox waxut ko julliwut waaye ku toog ba waxtu julli jàll te julliwut waxtu wa te amul ngantul sariya lu ñu xam wan miadiba danbi lil muaxiri xata tafuutahu bila usrin duri daan ne kon boo yow miy déglu sama ndigal di bàyyi samay tere saa bu waxtu wi ne yunnu na fekk nga waaj ba jekk su agsee ba toog bala moo jekkandiku gaawal def ci moom li nga ci war a def dellu ci leneen waaye bokk yi cérémonie yooyu ñi ngi ciy bëgg a réere ni ma ko jinjee woon léegi suñu bopp ndax lan li ci ëpp bu ñu koy tàmbali waxtu wi dana des lu bari loo xam ne wax fa la ñuy wax dem julli ji dana fa xaj waaye la ci lay jëkk a doon njuumte mooy du ñu fa bàyyi xel ab jullikaay su ñuy teg tànt bi duñ ko jëm duñ seet ba xam xeble la jëm ba bu fa julli fekkee nit ñi mën faa julli wala déet ñañu koy tàntuloo xamuñ ci xibla dara mën naa bañ a doon ci ñu xam ñu xam xibla dara ndax ab société lay doon boo xam ne da jël ku nekk ab Sénégal lay woo rek ba carte d'identité sénégalaise wala passeport sénégalais passeport sénégalais mën naa doon ku nekk xamul fu xibla jëm da koy samp rek fa mu gën a yaatoo wala fa mu gën a jege ñaareel ba suñ fa mënoon a wax la ñuy wax dem waxtu julli fekk leen fa ñu julli ko fu sax mu tane waaye dañuy bàyyi ci diggante bu kii jëlee kàddu balaa kenn jëlaat kàddu am ku fa nekk wax fa loo xam ne wax joo xam ne du amut bopp amut cap amut bopp amut genn naan diwa nga ne accident waaw loolu la waxoon def na ko ni ñëpp ñam fa fekk nag ndax mën nga lim kenn ku ne par kenn waaye laajte naa ñu ne daa am lu ñu cay jëlee saa su nekk bu ñëwee da nga ko war a tudd borom xew wi xam na ñëw na waa rajo bi war dégg ko waa télé bi jël ko. mu ne naj na jaaral fu jekk bu bu ñu fa bàyyi ko nee nañ ma day gisee kooka ne ko mbaa ne ma ko waxee baax na mu ne ko lool daal yëkkati dara jox ko ñu nekk fa ku leen yàlla xiir ñu yëkkati ko ba ñëpp ba mu kawe xamu nit ñi dañ ko séenam déet ndax ku yàlla yëkkati rek moo mën a yëkkatiku waaye mën nañ faa yëkkat ni dal ba bu doon ku ñuy mën a seen ñu seen ko waaye it ku leen soob it mën nañ ko faa daaneel ba bu dul ku yàlla jàppale kenn duutu ko gis waaye ki yàlla yëkkati mooy yëkkati ko ki yàlla wàcce mooy wàcc ba faw waaye it ñàkk gi muy ñàkk aw tëralin bañ xam waxtu bu muy tàmbali ak waxtu bu muy jeexit da cay feeñ ndax léeg-léeg benn waaye ne léegi tey waxtu yu jot nañ ko gàttal am ku ne palet koo xam ne xamut ci diine dara bay nekk mufti daan ne nañ dem rek ndax waxtu yu gudd na yàgg na waaw waxtu yu bu guddee ba yàgg it kan ci mbooloo yi moo xam ne moo xam moom ne fii ba waxtu wi yàlla dana ko fi fekk muy dund te waxtu war na ko ba noppi kon foofu fépp ñàkkal nañ fi fayda julli ñàkk fayda goo xam ne gi bu julli mënoon a dox doxam ñaxtu dana ko dox ndax danañ sédd ki njiitu réew mi yabal danañ ko sédd mu wax ba doyal ñu sédd ki sëriñ bi yabal wala muy wax ci turu sëriñ bi mu wax ba doyal ñu sédd diw sédd diw sédd diw tudd fa ku leen neex te julli mi nga xam ne moom la ñuy toppee kii woote moom bàyyiwuñ ko ci xel dañ naan ko dem sa kër julli te xamuñu ne julli ci mbooloo meek mu ëpp solo soññee fa ci nu ñuy def ba fonk julli fekk rajo yi ak télévision yépp ñu ngi koy jël di ko tasaare ci àdduna bépp ak internet waaye déedéet mën nañu faa wax ba jóge fa bañ noddu sax waaye dañ naan ñokket kenn ku nekk dem xamuñ seen yoon nekku ci ñii ñu wowoon julli nañ wala julli wuñ wala danañ ko julli wala duñ ko julli waaye li ci leen ci amaloon solo mooy nañ nit ñi ñëw teew rek te bokk yi am na lu fi dolli ko wat ñiy wooteel yàlla ak yonent bi ak sëriñ bu mag bi duñ bàyyewaale xel ne nit ñaar la góor ak jigéen góor ñi lañ woo ak jigéen ñi waaye jigéen ñi bu ñuy ñëwit ca foofee ne daj dajaaral kenn ku nekk def boppam neenam diw ba weex tàll wala mu xonq coy diw mbari bëtam te moo ne yàlla moo ko gën a xam fuutu rafet zibxatallahi wa man axsan min allahi zibxatan laqad xalaqna al insana min salsalin min xamain masnunin fa ida sawaytuhu mooy lu ci nekk fa mu war nekk teg na ko fa xool na ba xam ne nii moo gën ci moom wa nafaxtu fihi min ruuxi waaye dañ koy naan déedéet yàlla am na foofu dafaa def fabri défaut de fabrication léegi tuñ yi dañ ko war a diw ba muy naj ba mu ne naj ñu diw mbari bët yi xoos yéen ya akub lay set daal di cay diw la leen neex te xamuñ lañ cay diw fu ñu ko fu mu jógee ak lu ñu ko defar daal di jël kawar goo xam ne xamuñ ku ko ku ko mamoon li ñuy wax cheveux naturel nee nañ léeg-léeg sax ñu jëlee ko ci ku faatu te ku faatu sariya daa bañ jëlee ci moom dara te bokk na ci yi gën a seer dégg naa laajte naa ko ci marché bi ñu jël mbubb mu cher ak njëg nga xam ne war nga see mën a am juróomi saa koy ceeb jox ko fuqaraaw ak masaakin ñu xottee ko mbubb moo xam ne dañ koy xàppati ba nga xam ne bopp boobee mu jëndalu cher kawar googee rek di kawaru medd kawaru medd lay jëndalu cher takk ko defe ne moo ci nekk sol mbubb mu cher moo xam ne bu soloo ba noppi tamit day mel ni ku raf la ndax boppam bi du ca teg dara xar kanamam bi noona waggam yi nii ak këlli poobar yi mooy yaq yooyu na ci loos bi te féeteeg dënn bi da koy bàyyi mu ne fang mu bàyyi dënnam bi ba noppi nag ñu jàkk ñu toog dàkkaarloo ak góor ñi léeg-léeg télévision daf ci ñaawal waa diine day génne kiy waaraate di yeete di wax lu ñor di wax ci saxaaba yi di wax ci anbiya ak mursaloon yi di wax ci sëriñ su baax si télévision bi jekki-jekki na tay wane koo xam ne kii nii ma nii ma wax lay mel du sol du musóoru du sol mbubb te moo ne ci xew la ñëw moo ko moroomam te ñooñee buñ ñëwoon ay jëleen ñu julli itam xel xalaatu ñuy dem di jàppi ndax ku jàpp da nga sëlmu te bu sëlmoo la mu diwoo woon roos waaye am na ci it góor ñoo xam ne xel xalaatu ñuy dem di jàppi ndax ñoom itam ragal nañ seen mbubb tooy walla seen diw gañ diwoo woon ba ñuy ñëw bu ñu sëlmoo dana rocc ko ak itam ñu jóge ca wana wa mën nañ faa jël a xet la Sëriñ Tuubaa waxoon ne kuy dem ci kilifa diine buy dem ci buur nañ ko jàppee koy dem ca daral ga kuy dem ca daral ga bu indiwut gàtt indiwut nag it dana fa jële ak xet ba ku ku mu xeeñ nga xam ne ki ci daral gi la bàyyi ko kon julli ni mu toll ci diine ak wàccuwaay bi mu ci am ak fi ko Sëriñ Tuubaa tegoon seytaane tàmbali na cee dugg ba xew-xew yu bari dañ koy tolloole ak waxtu julli ba nga xam ne kenn du ko tal ndax kañ mu di jël kàddu daanaka moo fa dal dajale nit ñi moom la ñuy nekk te bala ñu koo jox kàddu waxtu julli bi jot ñu ne nañ far àggale bokk yi su fekkee dañoo woote ngir jëmmi sëriñ bi ci Tuubaa rawatina fi ñuy waxtaane dend ak jumaa ji juróomi meetar wala fukki meetar ak juróom nu mu ko jegee rek may sax dox dem ci ndax ñu ngi dem fu ko gën a sori waxtu julli wi ñu sone te Touba nu ñu koy defee suñ Touba daa daa fexe ba yey ñëpp ci kàttanu suñu borom ndax Touba bu waxtu wi duggee rek ba teg minute yu néew danañ sone ne waxtu wi jot na nañ waaj teg fukki minute ak juróom wala fukki minute jëm fukki minute ak juróom door a nodd bari na ci Touba ñoo xam ne xamuñu waxtu julli nodd yi moo leen koy wax buñ noddee tegaat ci fukki minute muy fiñ nodd fi ñu sonee fi ñu noddee ak fi ñu jullee daanaka tuutoo koy manqué ñaar fukki minute ak juróom foofu wàcc xaj na fa waaye seytaane day taxaw di ñaawal woote bi ak ñi ko woote ba kañ ñi mujj jox kaddu moom mënut a gàttal ndax war naa tontu war naa yóbbante war naa mën a soññee loolu nag ñëw na lu muy xaj ñaar fukki minute ak juróom su ko defee buñ noddee ñee julli ji ñoom dem julli ji ña woote woon toog fa ñi wuy ji suñ ña wuy si woon suñ demee ci jàkka ji ku ñu fay fekk ku ñu fay fekk gannaaw ñu leen woowoon ñu ngi toog fii loolu lu ma tax yàpp xel la moo tax am nañu yàlla may aw fit am gaa yu leen di wax da ngeen a ñàkk taalibe da ngeen a ñàkk pëstéef da ngeen a bokk ci mbooloo sàngam ak sàngam féeg sëñ baa ngi toog kenn warut a jóg waaye bokk yi sëñ Abdul Xaadir Mbakke neewoon na ci fatwa boo xam ne bii bu gàtt la te jege dafa am ku yeble ci moom kam yabal ñëw ne ko nee nañ nga fasal ma soxna sàngam Sëñ Abdul Xaadir ne ko ñaata nga yore mu ne ko ñeent mu ne ko du ma la fasal te bàyyiwoo kenn ci ñooñu mu ne ko moo ma ko digal mu ne ko su la ko digalee it du ngeen bokk bàmmeel da nga koy jiitu ñu suul la wala mu jiitu la ñu suul ko waaye kenn ci yéen ñaar mën naa ñàkk bokk bàmmeel waaye kiñ woo ak ka ko woo ñoom ñëpp waxtu julli mi nga lu seen loos te inna salaata kaanat ala al muminina kitaaba mawquta su waxtu julli bi jotee lu cérémonie bi ñor ñor ñor ña fa teew ñoom nañ jëfandikoo alquran ji mee bi ko jàng yàlla nee na woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dama la yónni alquran ngir nga yee ci nit ñi waar leen ci ba ba àddunay tukki moo tax yonent bi ne woon uuxiya ilayya hada alquranu li undirakum bihi wa man balaga waaye yàlla nee na yonent bi it waxal jullit yépp ne leen fépp foo xam ne dañ fay ñàkkal fayda samay aayaat yow neel ñokket jóge fa ba nga dégg ba ba ngay dégg ñu tàmbalee waata wax ci samay aayaat bu la seytaane fàtteloo ba nga fàtte it buñ la fàttelee neel ñokket fa nga nekkoon gaaw wuy ji yàlla wa ida raayta alladina yaxuuduuna fi ayatina bil istihza fa arid anhum xata yaxuudu fi xadiisin gayrihi wa imma yunsiyannaka alsheytaanu fala taqcud bacda dikra maa alqawmi zalimin waaye ñi nga xam ne nag ñoom saa bu waxtu jotee julli jotee lu cérémonie ba ñor-ñor ñu ne ko fa ñukk dem julli ji yàlla nee na leen su ngeen julli jee dellu si waat mbugal ma may teg ñee seen yoon du ngeen ca nekk yéen du ca nekk yéen sant leen wa ma ala alladina yattaquuna min xisaabihim min cheyin min dikra laallahum yattaqun kon loolu benn la ci faat waxtu julli ci lu dul lenn ngànt ndax bokk yi ngànt yi yi sariya santaane dana gudd ñu di ko leeral xanaa bu doon ba fi tubaab bi lekkee te soo booba sax cérémonie ya ma ca gëstu dawuñ ko def waxtu wu jub dañ ko daan xëy def ko balaa midi mu jeex ñay julli ji julli ji ñee taxawaalu ñu taxawaalu ji waaye bi ci dolliku gannaaw faat waxtu wi mooy léegi xew-xew yi li ñuy wax sponsor tàmbali na ci am sponsor mooy société bu mag boo xam ne daa am ci gafakaam lu muy génne ngir siiwal li muy jaay loolu tàmbali naa dugg ci xew-xewu diine léegi nga xam ne saa boo xoolee seen nit ku yiw di wax ci yàlla nee na yonent bi nee na Sëriñ Tuubaa nee na nga xool sa ginnaawam gis fa tab la boo xam ne waa carte gi ñoo ko fa teg walla waa sàngara si walla walla walla walla ñoo xam ne daal lañu yor kenn xamut nuñ ko amee kenn xamut lu baax lu ñu ciy defal diine walla ab jullit waaye dana ñëw buux leen lu am maanaam tafal leen fa am njaayam rek ku ñëw ku xool sëñ bi xoolaale loola nga xam ne kon day jaay xew wi lu lu waay jaay nag ñàkk na ko lu waay jaay ñàkk na ko loolu mooy jaay ci loxo mooy lu lu jóge ci sa loxo dem ci yeneen loxo te dootoo ci jotaat soo amee la nga bëgg ginnaaw dañuy jaay xew bi rek wut ay sponsor léegi mën naa doon carte kat gi carte gi mën naa doon sangara si mën naa doon cigarette si mën naa doon yàmbaa ji mën naa doon kuy reesal alal foofu it nañ fi bàyyi xel seytaane imma yoon si ne naka seytaane falaa taqoon baat dikra maal xam zalimin la ca dolliku mooy sant cant gi nga xam ne dañ koy santaate te moo ne danañ sant ku nekk ba mu des yàlla yàlla mi nga xam ne moo dogal kii woote defalut nit ñi dara daraagun ndax mënagul dara séq gu séq koog ñoom itam nag ndax ñi ëpp ci ñuy wuy si bu ñu def fukki nit la mën naa am ñett ñi lay xam waaye juróom-ñaar yi dañuy ñëw ngir kemee woote waaye mën naa sant ku nekk ba mu des yàlla mi nga xam ne moom moo tàggat suuf si ba nit ñi di ci dox te suñ tànk du jàll moo tàggat asamaan si ba mu tiim ñu te daanu ci suñ kaw waaye moo tàggat ruux yi itam ba fu ñu ne leen yàlla nee na ñu wutali fa ñu fa jóge ba nag indaale lu bari lu am njëriñ waaye la benn boroom xam-xam waxoon ab buur moo ca nekk day ñëw buur bu jox ko lu bare bare bare bare bare mu bind juróom benni bayit yoo xam ne wenn wu ca nekk góor buur bi joxaat na ko lu ko ci ëpp lu ci ëpp lam ko lu ëpp ca lam lu ëpp lam ko joxoon waaye la tax mu jox ko ko du wax ji daa neex ci moom waaye dafa dëggu daf ko ne du ma la sant garde yi rocc seeni jaasi mu ne delloo leen seeni mbari jaasi jaasi ki ci maram li tax duma ko sant mooy nit ñi dañoo sant sant sant ba sant koo xam ne deful dara ñu ne ko loo koy def nag ak ci li mu defe mu ne dama koy ñaanal dama koy ñaanal ku muy ñaan yàlla ne ko judduwaale woo nguur te doo ko deewaale sa baay judduwaale wu ko te deewaale wu ko sa ndey waxe noppi su ñëwee ci say loxo du sa at yu bari ndax mbooloo mépp ñoo la mag bu dee xam-xam mbooloo yi ñu ci bari ñoo la raw su dee jub mbooloo mi ñu ci bari ñoo la gën a jub kon dogalub yàlla moo jaar ci sa kaw dama lay ñaanal yàlla mu bañ laa bàyyi ak seytaane ba mu di la bewloo ba di la wëlbati ba ngay jaar fi moo neexul yàlla loolu mbokk yi walla bal na fépp ca la ko buur joxe lu ëpp la mu ko joxoon bëy du nekk lu ëpp la mu ko joxoon ndax kenn mësu ko ko wax te daje yi lu ci am foofu laa jeexale tubaarkàlla rek te loolu ku ñuy wax Thierno Ndiaye Doss ci film bi ñuy wax Gelewaar joxoñam boobee ca lañ ko reyee ndax dane joxoñ benn baaraam a koy def waaye laaj nag ay waaraam yépp ay ànd di ko def te kuñ yàgg a jox kuñ yàgg a jox nga yàgg jël genn kàddu ngay man di ko wax ak a waxaat say doom doon ne ko ci yow seen doom doon ne ko ci say doom mooy jërëjëf jërëjëf jërëjëf kàddu googee bu mu ko waxee ca lañ ko reyee waaye jar na ko nag ndax alxikmatu dallatul mumin kon xew-xew yi yi ñuy woote te yàlla tax nañ ca bàyyi xel yàlla jox ko ci cëram rawatina julli mi nga xam ne daa am waxtu te ku ci wax ci mbooloo mi ne doonatut ab jullit mbooloo mi bàyyi ko suñu bar moo ne woon awraat yépp te suñ tubaab tudd leen ci masarikul jinaan wa ca waay mën a jël ginnaaw suñ tubaa naw na ko ba di ko tudd mën naa yóbbu nit ko ci yàlla waaye moom nee na bu mu ci jëloon tey bàyyi woo mu rit si Moussa Bassirou bi di topp ci ginnaawam kuru si Moussa Bassirou itam di moo tax yàlla wax ci alxuraanul karim ne am na ci ñoo xam ne lañu leen bàyyee sàggane nañ ko wala tàmm nañ ko sàggane par benn par benn par benn ba ba muy jeex te bu ñu ko sàgganee ba ba mu jeex su ëllëgee du suñu am aw lay te ku amul aw lay ci digganteem ak yàlla sawara la jëm fa xalafa min baadihim xalfun adaawu salaata wattabau shahawaat sayidina yusuf alayhi salaam ba ko soxna sa azizu masar di sàkkal pexe daa dem ba ak nit dikkal ko mooy fi alquran di waxee ne wala qad hammat bihi wa hamma biha lawla an raa burhaana rabbihi ak nit bëgg koo dikkal ndax kooka melokaan ba mu mel baayam di ab yonent moo ko ne eh mu xool gis àll bépp fu mu xool gis jëmmi baayam ji mu ne ko li la yàlla jox dafa mel ne dangaa mel ne picc mu fees dal la ki donc saa boo defee lu yàlla bëggut yàlla rocc wenn donc ba ba ngay jeexale donc te soo jeexalee donc dootoo mën a naaw moom la alxuraan di wax ne kadalika li nasrifa anhu suua walfaxsaa innahu min ibadina almuxlasin kon ku ci am cër na ca sant yàlla benn ñaareel ba sant ci borom Tuubaa ñetteel ba mooy mën na caa sant nag ñam laajoon tañ di ko jox waaye bu mu dëkkee jërëjëf jërëjëf nag jurul jeex yu amut ab te ku ku ku ku fi nekk moom jërëjëf ja bu fi jógee keneen moo mat ko jël jërëjëf du dëgg waaye it ñii ñëw itam war na leen a wax li ñu di tooyee ñu yóbbaale ginnaaw andiwoon nañ dañoo war a yóbbaale seen cër nu mu demee nga ne nangam ak nangam ak nangam moo tax borom xam-xam yi te la jaxale ñu ne ñu ne julli li muy nuru lu koy def lépp ndax fu fu mu fekk nit mën na ko faa defee nu mu la fekk it mën nga ko defee noona mooy liy indi noflaay bu sax dàkk ndax noflaay bu sax dàkk mooy ci ab jullit saa su nekk mu gëm ne yàlla rekk ko moom moo tax ñu misaal ko ne su yëkkatee ay loxoom kàbbar dana yoratuma dara yoratuma dara lu dul lu yàlla soxla lu yàlla yor yoratuma dara kon soxla naa lu ne gàññ waaye li may soxla rek ci yàlla ci loxo yàlla laa koy soxla bàyyi naa lépp tàllal loxo ay tàllal loxo yàlla mi du jeex la waaye su rukkoo ye am na ñoo xam ne bu ñuy nuyu seen kilifa dañuy rukkoo waaye rukkoo ci julli nag li muy tekk mooy nangu màggug yàlla gi waaye am na ñoo xam ne bu ñu nuyu seen kilifa dañuy sujjóot sujjóot mooy sa juróom-ñaari cër tegu ci suuf sa jë sa bakkan sa yaari yoxo sa bëti woom ak say tànk loolu si bokk yi lu kéemaanee ngi foofu taxawaay bi mën naa bañ a doon kéemaan ndax nit buy dox day day taxaw di dem waaye nit tam léeg-léeg mu rukkoo léeg-léeg mu sëgg jël dara te tudd rukkoo waaye sujjóot nag bokk yi ki ñépp di yaakaar ci seen soxlay adduna di ko yaakaar ci seen soxlay àllaaxira daf koy def kan la koy defal yàlla kon sujjóot toroxlu mënu koo weesu képp koo xam ne kon day toroxlu ni yow nangoo julli ci sa kanam nga di ko gis jàppal te fas yéene roy ci moom yu bari waaye bu fekkee balaa julli di dugg fenn julli fa ndax ruus naa sëgg ci kanam nit ñi di sëggal ku keneen dañ ko war a sëggal rek waaye ruus naa su jóotit ni ñu koy defee ñun bayee boo nga tey ci moom te tàmbalee wuti keneen ndax kooku tàmbali naa sàggane li ñu ko jox xamu ko moo tax yonent bi ne woon sallallahu alayhi wa sallam yàlla mi ngi ko defal xel mu dal bi mu ko joxee julli ndax saa bu bëggee jaxasoo ci soxlay àdduna day daal di jàpp rek tàmbalee xalaat ci biir njàpp mi ki muy dajeel ak fi mu jëm fan la ba bu taxawee julli yàlla teg yàlla tegu ci kanamam mu di ko xool di wax di waxanteeg moom moo tax mu ne xel mu daal moom ci yàlla di ko yàlla yël na julli rek ci la ko tàmbalee amee kon nañ bàyyi xel aaya bi nga xam ne moom laa jàngoon léegi ci alquranul karim tam nekk sootul xadiid yàlla nee na mbaadu ñi nga xam ne dañoo gëmoon yàlla nangul ko yàllaam gi ak nguuram gi ak yi muy àndal yépp dañuy dem ba yàgg ñu tàmbalee bàyyi ñi ci des ñi ci des xel yàlla nee na ana fu ñu jëm ca ña leen jiitu woon fa ñu jëm rek fa lañ nar a jëm muy yéefar yi ndax yéefar yi dañoo dem a dem a dem ci topp seen bakkan ak di mettitlu ndigali suñu borom yi ba far seen xol wow kon waraate mënut ca dugg ñu dugg ci daaira bi ñuy wax daaira fisq bokk ci faasiqun yi ab jullit nag bokk yi su xase ba dugg ci daaira imaan lu ko tey saxal la war a sàkk guddeeg bëccëg fu ñu woote it na ko fa wuti waaye fépp foo xam ne dafay dem di fa wàññi koo pas-pasu imaanam foofa na fa néewal ay tànkam balaa lam yoroon di jeex te du am fu mu ko jëleeti kon julli benn ponk ngu noonu xam ne ci moom mat naa bàyyi xel lool fu fi waaye toogate daal buy dem na yóbbaale am jàpp wala mu nemmiku ba xam ne fi ñuy jàppe sa riwu fa mu xam fan la fa su waxtu wi jotee ndax am na ñu mënta toog lu yàgg akum jàpp mu ne ñokket bañ a déglooti ma sàmba bañ a déglooti ma demba dem jàpp suñ jullee na julli suñ julli wut na julli fàttali koo ko waxee si Abdou Xadir ji mu wax ne kenn ku faatu moom la ñuy suul ci bàmmeelam ak lu ngeen xaritoo xaritoo ak lu ngeen soppante soppante kenn mus ne mus sa walantar na gunge ab xaritam wala ab soppeem wala ab sëriñam danoon moom ko yàlla na yàlla yokk leeram rek yàlla nañ ko yàgg ñaanal rek waaye nañ ah na nañ ma booleeg moom ma far dem ànd ak moom daal pas-pas àggagu ci kon foofa mooy dëgg loola mooy dëgg foofa mooy dëgg ki koy dogal di tàggale ku àndoon ak nit ba defe du tàggu moom kooku moo digle julli waxoon naa fi keroog ne kenn jullul kenn ndax kenn ku nekk moom la ñuy suul waaye su fàttali jotee ñi ñuy fàttali nañ jéem a fàttaliku bàyyi xel ne ñaata nit lañ xam ci seeni bokk ñu faatu te du te duñu leen gisaat te ñoo cay topp te xamuñ ci luñ nekk te ñun ak ñoom ña dem ñépp ñi ngi jëm ci bis boobu yàlla wax ci alquran yow ma bis dana ñëw tajidu kullu nafsin maa amilat min xayrin muxdar wa maa amilat min suuin tawaddu law anna baynaha wa baynahu amadan baida bis dana ñëw kenn ku ci nekk ñu indil ko ay jëfam jëf yooyee am na si ñoo xam ne dañuy bëgg ñu bàyyi ko fa ñépp di ko séen naan diw moom moom leen comme ni ko ñenn dañuy waxee naan wala ma voiture sama wataa ngi nii naan kii oto bi modèle sàngam la di ko ci di ko ci yéem foofu noonu lay mel du bëgg ñu toxal ko ndax day bëgg ñépp séen ko ba naaw ko ci waaye it nit a nga fa koo xam ne lañ ko tegal ne ko mooy say jëf day bëgg yàlla soril ko ko tuddal naa ko fi keroog lu gën a sori diggante Japon ak Los Angeles Japon mi ngi ci penku Los Angeles ne ci sowu kon ku xam ne mi ngi jëm ci bis bi mel noonu te am na feneen alxuraan di wax ne laa yugaadiru sagiratan wala kabiratan illa axsaaha wa wajadu ma amilu xaadiran ولا يظلم ربك أحدا يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين